man pool ndawul kirist yéesu ci coobareg yàlla man ak sosteen sunu mbokk noo leen di bind yéen mbooloom yàlla mi dëkk korent ñu ngi leen di nuyu yéen ñi yàlla sedde boppam jaare ci kirist yéesu yéen ñi yàlla woo ngeen sell boole leen ak ñi nekk ci àddina sépp tey tudd turu sunu boroom yéesu kirist mii seen boroom di sunu bos na leen yàlla sunu baay ak Yesu kirist boroom bi may yiw ak jàmm duma jóg ci di sant yàlla sama boroom ci seen mbir ndax yiw bi mu leen may ci seen bokk ci kirist Yesu ndaxte ci yiwu yàlla yépp ngeen woomle ci kirist muy ci wax mu ci xam-xam ndaxte li nu doon seedeel kirist yàlla dëggal na ko ci yéen noonu nag leen genn may léegi bi ngeen di séentu waxtu wi sunu boroom Yesu kirist di feeñ ci biir ndamam kirist dina leen dooleel ba ca mujj ga ngir ngeen bañ a am wenn ŋàññ bés bu sunu boroom Yesu kirist dellusee yàlla kuy sàmm kóllëre la moom mi leen woo ngir ngeen bokk ak doomam Yesu kirist sunu boroom waaye mbokk yi maa ngi leen di denk ci turu sunu boroom Yesu kirist ngeen juboo bañ a féewaloo ci seen biir waaye na ngeen ànd te booloo bokk xel bokk xalaat ndaxte mbokk yi waa kër Klowe xamal nañu ma ne dangeen di xuloo maa ngi ñëw ca wax ja kenn ku nekk ci yéen a ngi naan man ci Pool laa bokk man ci Apolos man ci Sefaas man ci Kirist ndax kirist dafa xaajoo ndax pool lañu daajoon ca bant ba mu dee ngir yéen ndax sóob nañu leen ci ndox ngir wone ne bokk ngeen ci pool maa ngi sant yàlla ci li ma sóobul kenn ci yéen ku dul kirispus ak gayus ngir kenn bañ wax ne ci sama tur lañu ko sóob axakañ sóob naa it ci ndox waa kër estefanas waaye ci sama pàttaliku sóobuma keneen ndaxte kirist yebaluma ngir may soobe ci ndox waaye dama yebal ngir may yégle xabaar bu baax bi te ma bañ koo def ak waxi xam-xamu nit ngir bañ a ñàkkal fayda deewu kirist ca bant ba ndaxte yégleeb deewu kirist ca bant ba ak ndof la ci ñiy sànku waaye ci ñun ñi aw ci yoonu mucc gi doole yàlla la ndaxte mbind mi nee na dinaa folli xam-xamu boroom xam-xam yi lem xalaat yi ni am xel ana boroom xam-xam bi ana kàng mi ana boroom làmmiñ wu neex wi ci àddina si xanaa yàlla wonewul ne xam-xamu àddina si ak ndof la ginnaaw àddina si xam-xamam demul ba xam yàlla te yàlla dogal loolu ci xam-xamam soob na yàlla mu musal ñi gëm jaar ci yëgleeb xabaaru kirist fekk ak ndof la ci bëti nit ndaxte yawut yi ñu ngi laaj ay firnde greg yi di wut xam-xam waaye nun nu ngi yëgle kirist mi ñu reyoon ca bant ba te loolooy téq ngëmu yawut yi di ak ndof ci ñi dul yawut waaye ci ñi yàlla woo ñu yawut mbaa di grek kirist mooy doole yàlla di xam-xamu yàlla li ñuy wax ak ndof ca wàllu yàlla moo gën a tedd xam-xamu nit te li ñuy wax ñàkk doole yàlla mu ëpp kàttan doole nit mbokk yi seet seen nekkin bi leen yàlla di woo bariwul woon ci yéen ñi ñuy tudde ay boroom xam-xam mbaa ay boroom doole mbaa ñu rafet ab juddu waaye li àddina teg ak ndof yàlla tànn na ko ngir rusloo boroom xam-xam yi te li àddina teg ak ñàkk doole yàlla tànn na ko ngir rusloo boroom doole yi li dul juddu bu rafet te mata ci àddina yàlla tànn na ko yàlla tànn na li nekkul ngir neenal li nekk noonu kenn du mën a damu ca kanamu yàlla waaye yàlla moo def ba ngeen bokk ci kirist moom mi doon ci nun xam-xam bu jóge ca yàlla maanaam sunu sellaay sunu njubte sunu njot loolu dafa am ngir li mbind mi wax am ne kuy damu na damu ci borom bi